lu rëy islam di xew bu am solo boo xam ni mën naa ci mbir li nga xam ne ñoom ñu bàyyi sa jamono bàyyee nax na ko boo xam ne dara seetlu ba ñu delloo ko moom sëñ Moussa da ko misaal ci Cheikh Mouhamed Abdel Alami gis nga dafa wax ne walakinnani lam ulfi illa mayitan bihi hasana al ahya wa ahla al maqabir moom laa gis muy jëm joo xam ne bi mu demee yow la ko yàq dem ba tax adduna sëpp dañoo maase ñeemaa sax ngir dal ko koy ndax sëñ bi fu mu nekk rek foofu aljana la ci ñëw nekk ci si yëpp yang mendiri Nitya mười trăm lên koo mën a gis mu dànn wax na itam ci benn Ia a k 嗯，那个。 She's right there. Uh, 今天咱们今天晚上，咱们就开个会，开个会。 alxuraan dafa war a def di ànd ci baax dafa war a di nëb ko si dara dafa war a tasaar yi tas ni al badar war a di jaay sax islam bul jaxasoo ay boole yam rawatina nag ñi nga xam ne dafa welcome